avancement bi état d' avancement des travaux niveau d' exécution bi xamuñu ya a des gens aussi concertation yi ñuy waxoon dëgg dëgg dëgg amul soo demee tey fu ci mel ni côté cité bari eli mais mais chauffeurs yi fa dëkk ñoom dañoo sonn guddi gi fu ñu fu ñu gaare seen oto pour mm-hmm. ñu bu ñu liggéeyee ba wàcc pour gaare seen oto problème la am na sax ay maire yoo xam ne dañ fay daanu kon war nañ woog projet boo koy def da nga war a def lenn mooy participation responsable nga jël askan bi teg leen parfois évaluer ci li ngay def mais bu fekkee ne yow da ngay def lenn bi nga li li li la li la centre te à l'image du berte moo am si kaaru tata yi CETUD lañ ko dénk CETUD moo war a la ñu war a wax même tey état bi war nañu wax CETUD finalement quel est quel est le rôle du dañ ne conseil exécutif de transports urbains de Dakar moom tey le urbain de Dakar embouteillage yaa ngi ne guus musuma gis CETUD organiser une rencontre sur ça. mais bu ñu la dénkee service on t'a donné des missions bien déterminées il faut aussi que nga toog waxtaan ak acteurs yi pour évaluer ce que tu es en train de faire mais sinon su tu es soo continuer si benn lignée yaay mbëkku kese de boo mbëkkuwee ci miir bi doo gis kenn ku la jàppale. Mm-hmm. ñëpp dañuy toog croiser les bras. en tout cas surtout l'achèvement des des de chantiers du du train express régional euh, ba léegi euh, sénégalais yi pare guñ ci euh, dolli ci itam BRT bi nga xam ne fépp lañu tëj comme ni nga ko waxee sànq rawatina la nga xam ne xam nga particularité BRT bi mooy ci wetu tali bi lañ ko bëgg a jaarale bu ko defee daanaka boo jëlee côté Casba ba jëm côté Golfe Sud bi Euh, benn tali la ñu am wala ñaar bu sot nga jaar corniche soit nga jaar côté unité cinq pour mën a dem wala nga jël corniche bi moo tax euh, ba bi ngay demee côté ville c'est la même chose Sénégalais yi ci insécurité daanaka parce que guddi gi dox wóorul bari na fi ñu gasee te daanaka kenn xamul euh, état d'avancement bi ak fu kañ la koy jeexalee ndax yàgg nañ ko gis ci ci grand chantier yi nga xam ne moom lay tàmbali njiitu Macky Sall bi fi nekk. Mhm. c'est vrai que benn instant tamit Khoudoss euh, defar euh, chantier euh, baax na defar defar ay infrastructure tali yooyu ay pont wax yu ni mel mhm. mais tamit ñu koy def état par état tamit doon na gën parce que tey man je peux pas comprendre Sénégal ñu commen ñu commencé noo beaucoup de chantiers en en même temps terre mi ngi fi pareegul circulation bi metti te ñëw tey jii ni projet bi nga xamante ñu ngi bëgg jël rond point yëpp def ko def ko def def ko ay pont aussi mi ngi fi ba gis nga rond point Liberté 6 ak feneen ak feneen man je pense que euh, si si sama avis personnel e xam naa ne ñu bëri dinañ ko partager et Théo d'ailleurs brossé na ko tout à l'heure c'était préférable ñu def euh, état par étape bu pare ñu commencé waat beneen mais nii nii jël dëkk bi yëpp fu nekk nekk chantier da ngay xëy di liggéey doo mën a yegg à temps nit dina feebar ñu war ko yóbbu hôpital yoon bi mu yàgg fa ba suñu borom moom ko yooyu noonu yëpp dafa nekk des choses yoo xam ne suñu autorités yi war nañ koy jël en compte avant ñuy commencer no beaucoup de chantiers Awa Condé jooy ñu ngi soxla ay liggéey ñu ngi soxla yeneen ak yeneen ak yeneen ñu jël ay milliards daal di koy def ci ay projets yoo xamante ni amaana amalu amalugul benn njëriñ askan wi parce que man je pense que train express moom benn décoration laa ko jàppee parce que tey mënoo def benn projet euh, noppeegul nga jëlaat yeneen projet teg ko ci est-ce que sax dina amal li nga xamante ni moom mooy euh, njëriñu askan wi tout le temps rek dañuy gis ne que ñoom euh, projet yi ñuy teg euh, askan wi dañ si gis seen bopp mieux vaut ñu jël li nga xamante ni moom mooy priorité yi daal di koy def mieux vaut ñu jël la nga xamante ni amalul benn njëriñ askan wi ñu koy daal di wéyal Fatou en tout cas dinañu profiter incha def ko la suite pour am un expert en la matière pour ñu mën a décortiquer un peu l' état d' avancement euh, projet yi nga xam ne moom la ñu tàmbali euh, fii ci Dakar. d' accord incha allah donc euh, jërëjëf Abdou sa Diallo dinañ ko def continuité incha allah ñu indi